njiitu réew mi di Macky Sall nag la waa Fatick teeru rek teerte gu rëy ca rek ba mu fa delloo gannaaw bañ ko tabbee ba tey jile di ko fa yóbbu woon nag di ñaareelu conseil des de décentralisé ca waajtaay ga autorité administrative yi yu mairie ba ak it rek askanu Saloum yëpp taxaw tem rek ci xew-xew boobule nekk succès Moussa Diagne Mactar Seck ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu teewlu seen reportage. dëkk bi di Kaolack ñoom nag ñu ngi waajal bu baax li nga xamee ni rek moom moo di conseil interministériel ak conseil des ministre bi nga xamee ni moo nar a am fii ci biir dëkk bi kii nag di gouverneur bi nga xamee ni moo yore diwaan bi moom nag wax na ni jël nañu disposition yépp yi nga xamee ni rek moo jëm nag ci wàllu organisation bi. président de la République buy ñëw. am benn dispositif sécurité bu ñuy def. ndax yéen bu ngeen ñëwee eh, da ngeen ñu yëgal rek ñu bàyyi leen ngeen yegg ba si gouverneur te fi ma nekk nii fii le président di donc ça signifie que ki nga xam ne war na mën a yegg fi mu war a yegg dañ ko dimbali mu yegg maintenant ñi nga xam ne peut-être que waruñu ku nekk am na foo war a mën a dugg foo waratu mën a dugg loolu tamit si disposition naturelle bi ñu toll ñaare bi tam bu ñu bu bu ñu fàtte ne que comme ni ma ko waxee activité yi dañoo bëri bu activité yi bëree ñu bëri dañuy bëgg tam jàppale leen si loolu donc il faut que ñu régler problème pour éviter moom ay embouteillage am ay télescopage am ay insécurité si yenn kuréel. kii di gouverneur bi yëkkati kàddoom tamit wax ni lépp loo xam ne rek dafa aju ci wàllu naka la ñuy fexe ba defaraat bu baax Kaolack doon na ay tomb yoo xam ne daan ko waxtaanee ci biir conseil des ministres ak conseil interministériel bi. bu ñu fàtte ne si indépendance Kaolack moo nekkoon ñaareelu dëkk bi ëpp solo si Sénégal donc si wàllu koom-koom ni ko waxee tam wàllu mënuñ fi wax Kaolack te waxuñu mbéy. ndax ñu ngi si bassin arachidier bi waaye tam nee naa si wàllu tourisme euh, tourisme religieux ndax bi diine lu fi am solo la te am na fa ay yu am solo itam ndax Kaolack dafa nekk si xolu réew mi am potentiel bu rëy yooyu nag kilifa yi nga xam ne ñoo ko yore ñu ngi koy waajal wax naa ne tam mënuñ fi wax tamit te waxuñu si marché bi lakk loolu moo tax bokk na si problème yi nga xam ne ni ñu ko xalaatee pour régler loolu ak programme yi nga xam ne chambre de commerce ko ŋànk ak yi nga xam ne chambre de métier ñoo ko ŋànk yooyu yëpp daal la ñuy jël soumettre ko suñu kilifa yi ci nag jamono ji nga xamee ni nag ci campagne électorale sax la ñu nekk nii boo ñëwee ci biir Kaolack di nga gis ni dispositif bu am solo boo xam ni jëm na nag ci wàllu kaaraange moom nag la ñu samp fépp foo xam ni rek mu nekk ci biir dëkk bi ngir nag askan wi di mën a dem di dikk waaye tamit organisation bi mën a tegu ci anam yi nga xam ne noonu la ko nguur gi soxla